nii ma leen rombee Sénégal diri sama wëlis dugg biir dugg biir Amérique gii toog di jaagar jaagari di bëggee yéen ñëpp di wër di daw si ci man naan ma maay dindi stress noonu laa leen di rombee bi su yombal xiyaam di diri samay wëlis di dugg àjjana ñu naan yàlla mbaa yaa ne mu ne leen teey leen kii dafa assumer boppam xolam rafet yéenewul kenn lu bon di toppatoo boppam lijjantiwul kenn waaw jaagar jaagari jëm biir daw si su ko defee hypocrite yeeg seytaane yi na ah yàlla mbaa yaa ngi nii di mu ne leen waaw boppam la lijjanti boppam la toppatoo la muy def da ko assumé tabaar fakal la gëm ma bokkaalewu ma dara yaakaarul lenn amul kenn bëggul kenn gëmul kenn ku dul man yéen nag ngeen ne ay jullit ngeen yaakaaru leen ma gëmu leen ma du ngeen ma sant du ngeen ma yaakaar du ngeen ma ñaan faalewu leen ma di jëw di rambaaj di fumiste di tux di naan di hypocrite di bokkaale subaak ngoon ba pare taxaw ku jub ngeen ŋàññ ko iñaan soxor kaay leen toog ñu réunion la ma sam benn xarit ne woon mbaaye mu ne ma ah mu ne ma yombal xiyaam jugement sénégalais yi dina metti ma ne ko <laughs> ne ko <laughs> may ma ci tuuti ma ne ko gis nga bu yombal xiyaam yi bu yàllay àtte américain yi une minute lañ leen di atte xam nga yàlla ay mbiram da day gaaw ñu jàll Europe une minute ñu jàll yërmante yal na ñuy yërmante imagine nit ku gaañu ñu coor ko ay jaasi ba muy bëgg a dee ñëw ci hôpital quatre heures du matin tëdd deret jiy tuuru ay la ilaha illallah eh! nga ni doo ko laal ndax ñaata cent trente mille dëkk bu ñu ne quatre vingt quinze pour cent musulman mucc ay bu doon Amérique xomle ci mbedd mi sax bu ñu mandee ba daanu bu ñu miiree rek ambulance ñëw jël faj jël faj yóbbu dañ lay faj ba nga wér lii leer na man gis nga man saa bu ma wayaanee ba sonn su ma bëggee noppale ko du ma tëdd ci sama kër gi de damay woo nine one one ñu leen ñu ne ma lan la man leen help help ñu yóbbu ma ci seen hôpital yi ma tëdd di nelaw ñetti fan di nelaw ñu may raay di ma daj dajal di ma maase ba nga tane te dara duma dal macha allah waaye boo feebaree Sénégal dangay dee xam nga lu lay rey hôpital ña la war a faj ñoo lay rey ndax dangay egg ñu lay duur li ma benn paane woon mbaaye ma ne ko ah mu ne ma xam nga lan moom mu ne ma Sénégal coono bi mi ngi commencé ci boo juddoo dangay juddu nekk liir ne puccox ci sa biiru yaay ñu ne la till xët yuuxu rek daan ne laa ilaha illallah ay man dëkk bi ma ñëw bii ban dëkk la ndax xët bu xët bu metti bi la docteur yi xët teel nga tiit di dund ci musiba googu imagine Amérique gii ñu fi wasi nee xam nañ bu doom bi nee pàcc ba juddu dañuy jël liir bi xoolal naan ko di ko yëngal su ko defee liiru bu Sénégal ba nee na ñaa liir bi nag danaan di fil jàmm ji di fil salaam di naan ah man dëgg yàq sama der ah tey asan boobu lay fàttaliku tey lii way wuri ak may <laughs> ay déggal sunu jamonoy tey ji li ko tas mooy dangay wóolu sa nit waxtaan ak moom sa biir bu fa jógee weet ak keneen déeg moome la ngeen waxtaane wax jalaw ba si ah cey <laughs> yal nañu yàlla musal ci noonu. ay laay la laa moo a way waykat baa ngi déggal sunu jamonoy tey jii mën na déggal leen ki lay tàggaleeg sa waay ma nga langa ko waay langa laag sa waay ngeen di ñaawoo muy ree eh, ay ñiy way ñëpp dañuy wayantu kay way eh, ilaayi ku noppi kenn de duñ la xamal dara sutura looy bañ ñu xamal la ko bu ko man waxuma kenn sama dara noon laay laay ma la sama dara doo ma xamal dara laay laay la laa ay lu la sa noon xamel rek wër la weer la ni dégg tàmb jeng ay sutura di leen sutura seeni bopp di denc seeni secret bañ koo partagé kenn ndax léegi xarit amul de <laughs> ay mayeer ku leen na nga sa xaritu bopp ngala bul ma waxal lu ma nii di rombe te bul ma waxal lu ma nii di rombe di maa ko xeebe bul ma xoolal yaa ma sa jël yaa ma suturaam laay laay la laa ee kaay leer ñu la baxal la baxi ku ma jaar na ko ka di gi sa tani ee ee ku ma di ba kay teg ku ma di ba kay teg ku ma kay pare guma pose ko xaar ma dem simmeeku ji changé solaat beneen caq dikkaat sama gouvernement xewle dara du lewet incha allah. xewle ma ñëw ku mel ni man dikk ku ma di ba yaasar loo joxee te doo dikkale ma ci yow lay xamal si naam yow rek la ñëw ëpp na mel ni kumba dara dàqu ko xarit bu mel ni kumba dara dàqu ko géer gu mel ni kumba dara ah dara dàqu ma géer gu mel ni deexin jéey xolal jéeg bi teral ndeyam deexin jéey doo abaraan tib géej doo ko sóoru say ma am maanaa deexin deexin jéey yaa <laughs> eh, Amina Ndey Asoo ngi. Eh, mbakk rek dara maar. waaw aram loo kumba caam. waaw nañ ko ndamaale penda xar yàlla bopp cuwaar nguñ njaay biram xujatam mbaalo biram xujatam kombaas biram xujatam laay laay la laa foowoo sa bopp du apparente bi jeeg du ko sóoru say maas doo naa sa morom xóoj ee xoolal ndey kay bonde pa waddi mi la ak moo la ak ajal kay bonde eh, te kilim lii awulin lii maa yërëm sa noon maa fe sa laay la laa sa noon du kontaan sa du békk sa noon du ree dangaa lu baax te teeral boole sagal sa ndey téeram sa ndey laa ilaaha illallah borom yaay ju riis jaangi kalaay sa yaay sa baax ja tiwaawan du apprenti jeeg sëñ Babacar ay sa mooy borom ñaani xaas maw doy sa maam na say noon be careful. Sëriñ Babacar bu ñaanee mu dal gi da dan xim dan xim dan Ayda Caam sa yaay bu ñaanee mu dal waay sa bàjjen sa maam maaleykum ba joor degen faralam faralam ba ñaari boy sa maam yaay da mel ni géwél yaay buuri géwél yaay borom sigier xoolal fexe nga askan wi nga bokk kenn gënul la ci laay laay la laa état si yaa nga Ndakaar fekki bu xew nga def bu baax jàkkaarloo giir ñi wax leen lu baax yaa leen saf te yaa leen bëgg te ñoom it yow la ñuy tiitaroo te di la teral doo rambaaj doo fimisa doo jaxaasekat te luñ la wax nga jël daal di ree doo mer caam caam ee eh, bokkuloo ñi naan tojol ba booy waaw waaw waaw day yàq la rek. kenn du man.